fas yéene dellu ci ni nga xam ne ni lañ ko baaxoo di defee ñu tënku ci ay alxuraan bi ñu yàlla digal naan wa sakkir fa inna zikraa tanfa'ul mu'miniin loolu ci lañ fas yéene spécialisé wu ba su nekk rek suñu yëngutu bépp képp ku na ci xam tey bu subaa boo ñëw gisee gisaat ñu ci loolu ñu fas yéene waxtaan nag ay jikko ñu ngi jikko mooy nit jikko ju baax nag mooy ki nga xam ne mooy nit ku nite jikko ju baax saa su nekk kenn ku nekk gannaaw ba nga nekkee jullit war nga koy sàmm saa su nekk ci yow di ànd ak moom di fanaan ak moom di yendoog moom di xëyaal ak moom ndax bu jeexee ci nit rek daanaka dara di sut ci te jikko moom lañu tàggale ak ñi nga xamante ni si nekkuñu ay doomu aadama mu di ay animal jikko dong la ñu tàqale jikko yi ci biir doomu aadama ci lañu tàqali muy wa innaka la xalaa xulluqun xasim bi nga xamante ne fii suñ borom ci la taggee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu nu gëmee yàlla gëm Seydina Muhammad gëm Sëriñ Tuubaa nga xam ne moom la ñu yàlla booleel ay ndigal ci lañ war di xëy ci lañ war di gont te gis nañ ne jamono ji coow li ak yëngatu bi bari na ci ay jafe-jafe yoo xam ne nit a ngi koy jànkonteel te kenn tegu ko ku dul suñu borom fekk suñu borom laata mu la koy teg dafa am ay ndigal yu mu la digal ne la na ko def soo fekkante ne nag bëgg nga am xéewal soo defee ndigal yooyu danga ko am loolu nag dem ba lu mel na saaru dew dugal dugg ci suñu biir ba ñu dem ba xàmmeetuñ lu ñu doon xàmmeetuñ fu ñu jógee xàmmeetuñ fu ñu bokk nga xam ne booy xool nit ki li ëpp ci moom daanaka man nga ne aw tur doomu fi toll moom la desee ci jullit waaye nag jikko ji moom da daray jullit nekku ci ndax koo xam ne si lu ko neex wax lu ko neex def lu ko neex fanaan lu ko neex yendu amatuñ worma ci dara amatuñ sutura ci dara lu neex waay def lu neex waay wax loolu buñ ca tolloo kon jamono ji bu mel nii kon wërta bett genn te yàlla lu mu wax dana ko def inna allaha la yughayyiru ma xaw qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim la laa du ma soppiku ndara du li ma leen li ma leen euh, digal da ngeen ko wàcc fekk fële ma ma leen waroon a jox ma leen naroon a jox léegi nag mu mel ne dafay soppiku waaye fekk suñ borom du soppiku yow yaa wàcc raay bi nga xam ne ci lañ la tegoon crise bi daanaka fi ne mooy bi nga xam ne ñun ñëpp ci la ñuy coow ñi doon ay jullit ak ñi nekkul ay jullit yëpp ci la ñuy xëy ci la ñuy gont di wax waaye ñun ñi nga xam ne nag ñun ñooy taalibe yi nga xam ne ñooy taalibe yi Sëriñ Tuubaa crise bi dafa mënoon a sedd ci ñun ndax crise bi gën a ëpp doole ci àddina mooy crise bi gën bon mooy crise de mooy nit ki nga xam ne dem na ba jikkoom yàqu kooku mooy mooy crise bi gën a nekk crise bu mën a euh, sonal doomu aadama waaye crise bi nga xam ne nag ci wàllu jumtukaayu liggéey la xëy na li nga daan am amatoo ko nga xam ne kooku buñu defee ay calcul xëy na jamono ji jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel ci wàllu xeex wàllu guerre yooyu moo na ko yóbbee boobu crise noonu buñ jëm ñi gëm Sëñ Tuubaa warul leen a arrivé ndax Sëñ Tuubaa gannaaw ba nga xamante ne fii suñu borom teral na ci moom jàmm joo xam ne amul ci kenn mu bind ay xasaayit def fi jataayam yi nga xam ne yàgg na koo toogee ci àddina jataay yooyu kese bu ñu toogee di ko waxtaane dafay firi ci sunu xol ba daanaka li waroon a nekk ay jafe-jafe ñu ko dund xasaayit yi la ay yoon yoo xam ne boo ci jaaree yoon yooyu daanaka mën nga tàggoo li nga xamante ne si mooy njàmbat yoo ak mu tegaat yi ay yoon yoo xam ne ni daanaka daf lay taqale ak sant nga ne da ngay dëkk ci suñu borom mi maye di maye waaye nag su fekkante ne yooyu da ngaa dem ba perte ko nga xamante ne si yow jëfandikoo euh, xasaayit du daanaka doo ko def julli julli juróom daanaka duutoo ko def ndigali suñu boroom yi nga xam ne moo tax mu boole ñoom yonent bi boole ñoom tubaab du moom mën naa ne xëy na mën a saafara de yaakaar na yàlla wàcceeku ko ci jamono waaye noonu ñi nga xam ne nag ñoo gëm suñu tubaab te li ma waxoon sànq maanaam toog di waxtaane ci ay mbiram rek dafay mën a dànku xol ba jafe-jafe yi ci waroon a mën a nekk bay sonal borom du ci nekk bu dee jàng xasaayit wala nga nekk ci di def ay istighfar wala nga nangu ngay ngay ngay jëf ci dayre yi nga xamante ne si moom lañ sosoon ngir jëmmi sëñ Tuubaa ji ngir nekk fa te yaakaar yàlla gëm yàlla bu wér te topp ko tam wóor na yàlla lépp lu mu wax dana ko def te rus na sëñ Tuubaa ndax liggéeyal na ko loo xamante ne si lépp lu mu ko ñaan dana ko may sëñ Tuubaa tey ci aw yoon kon am kiris bu la tee nelaw yaa ko teg sa bopp ku tënku ci lenn lu ñu rëkk kiris na ci rek te gëm sëñ rek doy na maanaam ndimbalu àddina ak Euh, bi ci ëpp solo na gën cee gaaw mooy gannaaw boo defee faratay suñu borom yi ba pare jàng alxuraan xasaa it moo gën a gaaw ci dindi njàqare xol ndax soo ko dee jàng sa xol dafay féex da xam fi ngay teg sa tànk yàlla dafay lay leeral sa kanam daf lay leeral yoon wi day jaar ba lenn lu noo ko rëkk rëkk doo ko amee ci gannaaw boo ko jàngee ci anam ba nga xamante ne moom ko sant nga bañ koo jàng nag ngir bëgg koo faje benn problème nga bañ koo jàng ngir jàngoro joo yaakaar warlu gi nga xam ne warlu nga koo jàng ndax yaa signé contrat ci aslamtu nafsi te jébbal sa bopp dañ ci war njàngin wi nag bu fekkante ne du la taqale ak waxtu ñaaw du la taqale ak majaale ba shaqaawa bañ ngay jàng sax moo gën ndax boo bu fekkante ne da ngay jàng ba pare te saa soo déggee loo xam ne si lu jëm ci àddina la nga bëgg ci dugal sa kàttu te tiim ak xasaayit kooku bañ ngay jàng sax dafay gën ndax loraange ji boppam dafay jógewaat ci loola di ñëw di tàbbi ci loraange ji nga xam ne yor nga ko nag léegi nekk ñaari loraange boo koy jàng da nga a teewlu da nga war a làpp boole ko wóoroo di dugg ci mbirum lu ay caaxaan lu mel ma jàlle bi saxaawa nga toog bi waxtaan di jàng bu mu dégg ñu dugg ci politique nga daal di na ko fa kupp daal nekk ci politique ba tudd di wax ca la nga ca xam door a delluwaat ci bayit ba kooku du ànd ak ngërëmal suñu borom du ànd ak yërmande suñu borom ndax araf boo ci yëkkati dafay yàkkamti nga daaneel ko ba mën a jël beneen arab bu bu bayit wu jeex dafay yàkkamti mu jeex ba benn morom ja taxaw pour bëgg nga tudd ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay teew Serigne Touba dafay teew ñi nga xamante ne si ñooy malaaka yi nga xam ne ñoom tamit dañuy warmal Serigne Touba te passage bi foo ko xasee tudd rek ñoom ñëpp dañuy présenté ñoom ñëpp dañuy teew ñoom ñëpp nag teew ba pare nag nga jël politique bi dugal ci biir am Macky Sall bàyyil Macky Sall am Ablaye Wade bàyyil Ablaye Wade loolu dafa nekk loo xamante si lu ñaaw te ñun àddina xat na xat goog ak gàtt goog xam si gàtt na ko tey euh, nit ki bu ci dundoon téeméeri at bu jógee àddina tey dafay mel ne musul jaar ci àddina kon bis ba ngay am ak temps ba ngay am la muy xat xat xat ca journée ba waroo cee mën a di occupé ci ay caaxaan loo xamante ne si amul bopp amul genn politique nañ ko bàyyeeg ñi nga xam dañuy politique te bés bu set ñuy xëy di teg ab jéego ci lislaam ndax xamoo kañ la la fi suñ boroom di jëlee ak xamoo ban gàllankoor lay teg waaye loolu lépp bis buy dikk na fekk rek maanaam mu fekk la ci siraatal mustaqim ndax loolu lu am solo la mu bokk ci fàttali yi nga xam ne maanaam saa su nekk dañ koy fàttali ndax eh, képp koo xamante ne si yaa ngi bokk ci communauté mouridisme la la Sëriñ Tuubaa jàngal mooy na nga nangoo liggéey na nga topp yàlla na ngay waajal bis bi nga xamante ne si ci ngay dajee suñu borom te bis ba kenn xamul loolu nag lépp wut na ordonnance bu bari teg fi mu di xasaay bi ak sikkarulaa ak dimbalante ak yërëmaate ak boole ko maanaam di muñ ak boole di ñaan yàlla ak di ko yàlla yooyu la jël teg suñu kanam ba kilifa bu ko fi mas a nekkal bu nekk ci loolu nga ñu daal di kon loolu ci góorgóorlu xar ci sa tànk tubay occupé ci sa temps bépp na la na li coow li bari bari bari da nga mel ne ab jànj bu nekk ci biir ñax lu ñax ma lakk lakk lakk lakk dana la fa dégg ndax lu muy lakk du fa nekk dëgg la nag dana dana dana tàng waaye nag ya moom ni nga sa couleur bi nga meloon noonu ngay mel da ngay weex képp ku ci yor mel neneen nag moom ne la wóor ne fu sawara bi ñëwee du la fi bàyyi dana buub la nga yor lépp yóbbu ko te fi ne jafe-jafe yi metti na am na ci ñooñ dañoo demoon ba ca kanam avancé saytaane di leen gunge ñuy dem ba mu yàgg ñu xëy xëy fi ne arriéraat ba nekk sero te it fañ nekk moom guuma na dinañ fa gaaw a jot ndax dafa am lu leen rawoon ci gannaaw lu ñu waroon a gunge yàlla te loolu ñu bàyyoon ko ci gannaaw léegi nag arriéraat nañ ba nañ yàlla musal kon képp ku xëy na ngay góorgóorlu ci gannaaw ba nga jullee juróom istighfar dem liggéey na ngay jàng xasayit boo jàngee xasayit nga sellal ko saxal ko dàkk nag ba saa su nekk muy nekk sa xel soo dee jaay boo dee jaral nga di ko jàng soo dul jaral nga di ko jàng soo amib liggéey nga di ko jàng soo dul amib liggéey nga di ko jàng te wàññi bëgg bëgg bëgg yi nga xam ne da nga koy def ci sa xol ba saa su nekk nga def ko benn aspect boo xam ne si da koy teg vision di ko xool ba ba mu teelaa nelaw loolu dalay tàqale yërmaale suñu borom dalay tàqale ak yàlla te nit ki bu dul sant yàlla suñu borom da koy dégg dugal moo xam ne si da koy jege lool ndax moo ne ad'uuni eh, ad'uuni astajib lakum la in la asidanakum wala in kafartum la wax inna hasaabi la sadid kon nag loolu saa su nekk war nañ koy war nañ koy eh, moytu te yéenante lu baax te lu waay yor bu dee benn da nga bokk ci njabootu Sëñ Tuubaa ndax jullit yëpp la war sax ay nag ñun ñu ngi sañ a waxee ci fi nga xam ne daf lañ bokk boo dee tër bi Sëñ Tuubaa na nga njaay di bañ koo lor ci saw làmmiñ bañ koo lor ci ci ci jëf saa su nekk nga di ko jàppee comme sa bopp loolu boo ko defee ndimbal suñu borom danañu jege te amaana lu mbir tar tar tar ñun danañ ci mucc ndax fi ne jamono ji jafe-jafe yi yëpp ñaawteef yu tar yi nga xam ne doomu aadama yi teg nañ ko sot duñ ci deltu gannaaw te boo nekkee ab jullit rawatina nga nekk ab murit ñu tegal la yoonu alxuraan tegal la yoonu julli tegal la yoonu xasaayit ne la ja nga taxaw di ko sàggane yëruñu la la ca dëb perte ci loo xam ne ci amul bopp amul genn nga dem di ko roy bu yàggat la ñooña mel rek ca ngay mel te lépp loo xam ne dana leen dikkale dara du la ci mooy bu ñu demee yow ko pour ñu mu mu dañu nooyalal ay caaxaan wala mu dañu lépp loo xamante ne ci lu suñu borom santaane la nañ ko def mu diñu ko yombalal loolu amul moom da koo jëf ci boppam signé contrat bi def ci natt ñu teg ko ci natt yoo xam ne ci amul ci kenn ci adduna bi koo xamante ni si yàlla sàkk na ko koo xamante ni na ko sëñ Tuubaa attan ak coono ba mu ko def ak temps ko def ak at yam ko def yëpp boo ko dajalee nga xam ne kon sëñ Tuubaa ci boppam moo njëkk a ay coono gannaaw bu mu signé contrat nga xam ne kon yàlla yombul kon nag ku la ko woyofalal wala mu nooyalal la ko ba nga defe ne mën nga am addina yàlla da kon jafe-jafe yi gën a taraf mooy loolu na tënku ci jullit bi saa su ne nañ koy sàmm ndax sëñ Modou Moustapha Mbacké al euh, xalifatul awal bu seexul xadim daana wax nag nee na lu baax fu nekk ñu baax ko yóbbu waaye bu ko yàggee nag ña ñoo fa loolu wax ci am importance la lu baax ba ñu ñëwee ci yàgg ba ñu sëñ Tuubaa joxee ba ñu yàlla joxee sëñ Tuubaa rek la ñu joxal lu baax waaye nag sàmm ga mooy topp ci ay bindam topp ci ay ndigalam ba jumaa ji taxaw ñu topp ci ay ndigalam ba dëkk ba tollatee ñu topp ci ay ndigalam di muulaat xasaay bi di dekkalaat xasaay bi parce que jot ñu koy yaatal moo tax loolu nekk ba nëgë ni waaye bu fekkonte ne comme dañ ko sàggane woon wàcce ko ci àll ba tey kenn du ci mën a jot te kenn du xamit la ci démb lu mu doon la nekkoon démb kon nag loolu jaram di leeral addina kenn du fi yàgg kenn du fi taxaw ndax diir boo fi def bis boo xëyee bu defe ne yàlla def la bind rek jox la xéewal yoo xamante ne si euh, dala koy jox rek mu sax daal te ndax bu la ko joxee palaasu naqar du fi am du du fi am du fi am du fi am valeur du xëy di la teg nakar bu la xëyee la teg nakar ba sa dund gi jeex palaasu xéewal doo ko xam lenn lu ci ñëw nag na nga xam ne morom jaa ngi ci gannaaw lu ñëw boo amee xéewal da ngay ciy sant suñu borom te di ci jëf jëfi jëf jëfin bu baax di ci jëf jëfin bu rafet di moytandi ko saytaane saytaane nag mooy que ne day li ko doomu aadama wala mu am doomu aadama yu nekk yoo xam ne si mbirum addina doo nga leen ñor ñor lenn lislaam duñ ko def la ñuy liggéey milliards yuñ ca mën di am lu mu bari bari bari bari bari bari dara suñu borom gërëm amul ndax ko ci kooka nag jërul ñee la nga war a def mooy soo xëyee rek na ngay roy koo xam ne nekk nii nitu yàlla la donte maanaam gisoo ci moom sax alali àddina joo xam di fëfëri ndax seytaane moo laxas boo xam ne nekk nii toujours ci lay xëcc nit ñi nit ñi di daw te ndax dafa lépp lu ànd ak maanaam du yoon wax ne si dafa jëm ca direct ci moom lañ sàkkoo de muy ajana lépp loo xamante ne si nag yaa ngi koy def muy lu naqari bakkan te tegu ci jaamu yàlla na la wóor na ëllëg da nga am résultat baax tax fii yàlla bindu mu fi wàccee ñu fi ngir ab nooflaay daf nu fi bind indi ñu fi ngir ñu liggéey lu nu mën a delloo ci këru ëllëg ga ndax tooñ boo xam ne si nañ ko ko fële ci àjjana gannaaw ba nga xam ne terale na ko sunu maam aadama ak sunu maam awa saytaane doon fekk yàqal ñu ko ba wàccee ñu ci suuf nañu li leen ci dugalaat fi ngeen koy liggéey kon loolu war ngaa xam ne àddina yàlla wàccee ñu fi pour ab bànneex yàlla wàccee ñu fi ngir lu nu noppal yàlla wàccee ñu fi ngir lu ñu neex daf na fee wàcce ngir ñu liggéey ab liggéey nag ku ca nekk doo boobu nag la muy tuut ak bari la nga ci am na nga ko sant suñu borom loolu daal buñ ko defee di teel xëy di nangoo liggéey liggéey bu wér di bañ a yàq di jaamu yàlla jaamu yàlla bu wér dinañ am saxaatatu daare muy ndimbalal addina ak ndimbalal àllaaxira te ndimbalante du fi mas a jóg ndax ci lañ sose dayra ci lañ sose réunion ci lañ sose màggal yi ndax bis yooyu yëpp buñ koy def jubluwuñ ci ngir di feet ngir di yàqaat dañ koo def ngir nit ñi di fa dajee moo nit ñi ñu bokk ya di fa gisante ñu am xam-xam di dimbali ña xamul ña nga xam ne am nañ doole di dimbali ña nga xamante ne sii maanaam amuñu doole boole koog di fa jàng alxuraan di jàng alxasaayit xasaayit loolu moo tax ndaje yooyu am te ndaje yooyu maanaam bëgg yërmande gu ñu suñu borom bëgg yërëm bëgg ñoo boole ci ñuy taxe ëllëg moo tax mu diñu ko def kon nag loolu saa su nekk nan koy sàmm fii dëkkunu fi te du réew mu ñuy defaroo réew la moo xamante ne fii ku yàq ku nekk boo fi ñëwee rek da leen di dimbali muy la moo xam ne diine lislaam dara dara dara lu ko fi commencé du nekkoon kon ñun ñu ko fi indi bu dikkee ñun ñoo ko fi war a buñ ko fi mënta dolli ñu téye ko fi sàmm ko fi ba mu bennoo la ci ndax fi ne bari na coow loo xam ne ci ñu ngi koy coow ci teg buñ teg addina rek moo leen ko yóbbee ba dem nañ ba ci njurum doom yi nga xam ne dañ koy jur sax kenn ku ci nekk fi ne nii ku ci am doom ji góor yaa ngi yàkkamti mu mas mu mesure ba nga man ko yenu indi ci réew te loolu du maanaam taxul coono wàcc na coono bu lay wàcc ma nga ca nga dem def ndigali suñu borom yi mu la digal yàlla moom boo ko gisee mi ngi lay gis boo ko gisul mi lay gis te lépp loo xamante ne si maanaam bëgg nga ko moom dong nga la ci mën a génne léegi nag su ko defee bu yaakaar defe bu yaakaaree na léegi solution bi mu ngi ci nga jël sa doom indi fii ne doom bi góor la bu ëllëgee mu taxaw taxaw taxawaay foofu dafa am leeral boo xam ne si boo defee analyse ci sa xel tuuti rek da mën a gindi sa bopp ndax ñëw bi nga fi ñëw da yàlla def la boole ay waajur ñu jàngal alxuraan jàngal la xasaayit yar la yarub diine ba nga xamante ne si weesu nga foo yàqu nga door a ñu door laa waajal nag nga ñëw fii ci réew mi nga xam ne réewum du réewum lislaam doole di fi liggéey sa ak sa lépp mi ngi ci yow ngay liggéey mu neex ak mu metti ak euh, mu naqari ak mu ak mu neex yëpp ngay ngay muñ di liggéey ngir euh, dimbali ña nga xamante ne si ñoom nga bàyyi gannaaw muy waajulee di leen delloo dukkal bëgg faa sam samp kër gi sàmm ngor di góorgóorlu ci diine loolu nag su fekkante ne yow ki ngay indi yëroo yëruñu yëroo ko woon ci yar boobu ñu la yar boole ko fii da ngay dem ba toll benn jamono li nga yor dafay diis gan muy kër gi nga yor bu duutoo ci mën a dem benn jéego nga nga yaakaar ne nag loolu yi mënatoo ca dem jéego ndax mënatoo tala dimbali keneen ndax li nga xamante ne si maanaam kër gi laa jiital léegi nag loolu yi boo ci mënatul dara tey yow yaa sa ngor yaa ngi sa sa dignité yaa ngi sa éducation bi nga xam ne yaroon nañ la ko ci yoonu murid yar la ko ci tarbiya la ko ci daara wala nga tarbiyale ko ci ci ci nu mu mën a doon ci anam bu rafet loolee boo ci mënul dara ki nga indi fii na nga xam ne dañ fa ñëw jël jikko ji nga xam ne moom la fa tubaab yi yar te jikko yi tubaab moom ñëpp xam nañ ko bopp sa bopp la jom du ca am ngor du ca am yaru du ca am benn benn discipline doo ko ci gis léegi na nga bëgg kooku nga indi ko formé ko ci loolu ba pare bëgg nag mu jël sa place sa diisaayu kër gi mu yor ko te yow mi nga xam ne yaa ngi yor sa kër mënatoo ci continuer bëgg mu yor pare boppam loolu képp koo xamante ne si yaa ngi koy ndax fii du réew mu ñuy defaroon te si nañ ñi ñu ëpp ci njaboot gi ñu ngi leen di sànq di leen delloo ci jënd diine te loolu taxul woon lislaam jot loolu taxul woon jël avion yor juróom-ñett fukki at ak topp di dundal lislaam di ko yaatal di jël jëneen diine di dugal ci diine yow ngay jëlaat ci diine ji dem di sànni di dugalaat yéen diine loolu baaxul te loolu mooy lii ndax gone yoo fi xas indi bu ñu demee ba mesure fi jànge fi dañuy am complexe complexe bi mooy li li gi daw ci sa yaram du ci daw buñ génn fii di def li ngeen di def suñ moromi tubaab yi ñu doon jàngaloon ci école yi di reetaan loolu duñ ko def koo ci gis fi mu toll nii dafay yeefus li gën a bon nag ci àddina mooy leen occupé mooy technologie yu bees yi nga xam ne saa su nekk ñu xëy di ci gont nekk ci boîte Facebook yi nekk ci boîte SK yi di ci xëy di ci gont amul benn njariñ lakk courant jël sa temps jaamu yàlla ga nga war a def doo ko def njàngum alxuraan man jotoon na def ci yow ci biir Sénégal sax boo dikkee daf lay daf lay rëcc kooku boo ci tëdd muy liggéey di la jox wala nga mu di la noppal ci lenn na la wër na day sonal sa bopp foofu la coono nag di tàmbalee jëm kaw kon loolu ñi nga xam ne ñi ngi ñuy dégg nañ ko bàyyi xel bu baax tubaab bi lépp lu mu la yombalal na la wër ne mooy doon sa musiba ndax lenn lu arrangé islam amul te lu mu gis ne maanaam luy xajabal islam la dana la ci favoriser ba mu nuru lu baax te nekk lu baax loolu nag nite dong la ci mën a génne nite ak fas yéene dëgmal njàngum xasaayid yi nga xam ne moom laa waxoon ci teg ko sax bañ koo bàyyi moo la ci mën a génn kenn ku fi yenu sa njaboot indi fi ngir loola noppal foofu la say coono di commencé looloo taxoon ma ne woon nag il faut que encore une fois message boobu danañ ko jéem a lancé à travers le monde su ñi nga xam ne soo boobu ci nañ ci bàyyi xel te it ku ci duggati bay diisoo buñ la ci waxee la ca gën na ko def soo ci dëgëree bopp ne maamoom sama bopp maamoom sama alal ndax doole jàng fi moyen yaa ngi fi bu ëllëgee loolee dana la mas rëcc te la nga jotoon a def da nga gën a dolli muy tàkk rek ngay gën a bopp di noonu dong la mbir ne du ñëpp a bon na ñëpp a baax ñu yéenewuñ kenn aw ay bu buñ sañoon képp koo xamante ne si yor nga fi njaboot njaboot gi dafay a sax ci diine sax ci lislaam sax ci murit di nangoo liggéey te bañ a gis len luñ waaye nag suñu gisee loo xam ne nii ci sunu xeet la dal sunu mbokk la dal foo danañ ko dénoncé nag wax ci dugal ko fi nga xam ne buñ ko tasaaree xëy na ñu bari danañ ci mën a jot su ko defee ñu mën nañ koy jàppale ndax fii solution bi moom yàlla nit dif indi maanaam du ko du ko dindi xëy nag am nañ ci yaakaar ndax fekk ku nekk ci daaray di jàng nga dagg njàng ma ngir sa intérêt boo ko defee suñu borom moom itamit bu xëccee intérêt maanaam dana la yey te loolu moom moo fi bari léegi suñu jigéen ñi bari nañ fi ñu baaxe ngi fi ñu nangoo liggéey ñoo xam ne si moom wax dëgg yàlla ngi ci jot a xam am na ci ñoo xamante ne si moom képp ku yaakaaroon ne maanaam den ci doon séntu safaan ba doog ci gis waaye am na ci ñoo xamante ne au contraire luñ ci tudd daal loolu mooy message bi nga xam ne bëggoon nañ koo tasaare Euh, wax ko ñi nga xamante ne ci ñoom ñoo ñuy déglu à travers le monde euh, wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.